une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer alhamdulillahi alkarim silman ala istiqali bi furudin wasman alhamdulillahi alkarim silman على استقال بفرود وسمن سكرت لأنه قد سخن لوطن بنفى مع القنين وخادني إليه بالتهاني من بعد ما سبب التخيل وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي خطي عن تبعا على الذي من بمراد اقتدى في سر والجري يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينه بأمر ربي فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ولا سفيع وآله وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم هساوين اليوم يا وابو خيرك في دارين لا أحاب وإنني يا بر يا كريم داين وعن شكرك لا أريم منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك والرديت mbokk yi ñuy bàyyi xel ñoo ngi fii ci kër sëriñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur kër sëriñ Talla Mbacke nga xam ne fi lañ dalaloon ñi nga xam ne ñoom lañ darajaale bis bi di waa kër sëriñ Mor Soxna ñu fekk si leen fi toog ak Serigne na Mbacke gànnaar moom sëriñ Jili gànnaar moom Serigne Mor Soxna fas yéene ko jébbal kàddu gi rek mu defal ñu ay jàngat yu yu gàtt rek ci jëf ji ak doxeen wi ak lim fi jot a gis sëriñ bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. Serigne Xasan Mbacke ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di ziyaara mboole mbokk yi ñuy teewlu yëpp. di am mbégte bi nga xamee ne yàlla dogal nañu teew fii ci Misra ci bis bi nga xam ne ci lañuy ñuy fàttali ko Serigne Cheikh Asta Walo di kenn ci njabootu borom saam di ziar bu baax a baax ki nga xam ne moo di ab xalifaam nekk ci bopp bi di sëriñ Mbacke di ko ñaanal itam mu yàgg ci kanamu njaboot gi naka noonu lañ koy ñaanale ki nga xam ne tey jii moo nekk ci boppu njabootuk Serigne Mor Soxna di Serigne Baara. de la bu baax a baax mbir mi ni mu demee nii ndax kon ne xam nañ suñu Seex Asta Walo ak suñu Mor Soxna ñoom ñoo bokk Maam Mor Jaara borom saam kon waa suñu Seex waa kër suñu Seex Asta bu fekkee am nañ bis bu mel nii nga xam ne ci lañ koy fàttalikoo ak di ko ñaanal tuddee ko njabootu Serigne Mor Soxna loolu wax dëgg yàlla lu rëy la waaye luy dëgëral mbokk la lu koy feddali la itam moo tax ñoom itam jox nañ ko yitte ndax ñun ñëpp ñu ngi fi biñ xëyee ba tey Serigne Baara mi nga xam ne moo nekk ci kanamu njaboot gi di xalifa mi ngi fi ànd ak lu bari ci kilifa yi sëriñ eh, Alaaji Mbàkke moom sëñ Bas Mor mi ngi fi ak sëriñ Abo suñu moor Mbàkke xam sa diine ak ñu bari ci njaboot gi nga xam ñoom lañu àndal sëñ Morum sëñ Seex May loolu day wane ni kon jox nañ ko yitte waaye loolu loolu rek li nga xam ne itam moom lañ ci bëgg a wax mooy njaboot gi nañ gën a taxawal ci dundal loolu ndax ku ne xam ne ne suñuy maam ci loolu lañ nekkoon ndax suñ ñaari maam yooyu nga xam ne tey jii ñoom lañ boole muy sëñ moo soxna mi nga xam ne moom lañ ko tuddee ak sëñ Cheikh Asta Walo ko ne xam ne ni ñoom ñoo bokk sëñ Mame Mor waaye loolu dañ ko dundal rafetal seen mbokk am relation bu rafet kenn ku ci nekk itam la nga xam ne moom la yàlla dénkaane ci ak njaboot kenn ku nekk du ko doxal sëñ Cheikh Asta Walo xam loolu taxoon mu fonk sëñ moo soxna def ko muy magam waaye sëñ moo soxna itam fonkoon ko lool kon loolu bu fekkee njaboot gi ñëw nañ defaat lii loolu wax dëgg yàlla lu rafet la waaye luy dëgëral ak mbokk la te dafa doon doon itam ndax lii dañuy fàttali ko ndono li nga xam ne am nañ ko ci sunu maam yooyu te nit ki dafa war a sàmm ndonoom xam mooy lan bu ko defee man koo fonk bu baax ndax dañuy dégg arab yi di wax na euh, man day dayyaa troisoho ya diyaa nit ki ndonoom la am moo tax saa bu ko sànkee rek moom ci jëmmi boppam day sànku mooy dootu xam lan moo di ab delluwaayam lan mooy cosaanam ak lan la war a def lan la war a bàyyi waaye nit ki boo xamee la nga xam ne mooy cosaanam xam na nga xam ne moo ko ca war rek boobaa dana tax mu am ay taxawaay yu rafet xam na nga xam ne mooy ay devoir mu jëm cee taxaw te lii nag wax dëgg yàlla ab soññeeli ci loolu moo tax ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di ñaan yàlla gën a dëgëral mbokk gi te sunu maam ji nga xam ne moom la ñuy fàttaliku tey itam di suñu séance sowale mi nga xam ni saa boo ne misère rek xel yëpp dem ci ndax Mamour jaar borom sam dafa daa sañc ay dëkk di di ci féetali leen ci ak njabootam bi nga xamee ne yàlla dogal na ma sañc misra nga xam ne fi lañ koy defee nag yàlla dogal na suñu séance sowale moom la fi delloo moo tax bu ñu koy fàttaliku lépp itam ñu ñëwaat fi maanaam nga xam ne njaboot gi yëpp fi lañ dajee ko loolu ñu ngi koy rafet lu baax di ñaan yàlla gën a yokk ay maqaamaam gën a yokk ay ngërëmam tam mboolem ñaan yi nga xam ne ñu ngi koy ñaan di ko jëmale ci moom yëpp itam yàlla nangu ko waaye noonu lañ koy ñaanale itam njabootu sëriñ moo soxna bu ko defee lii moom dañ koy fonk bu baax a baax te di ko rafetlu te di xam ne itam ab jéego la boo xam ne bu am solo la te ñu itam luñ ci mën gën a yaatal lool ngir gën koo rafetal incha allah taala danañ ko def jërë ngeen jëf. jërëjëf sëriñ Cheikhouna ci kàddu am solo yooyu kon mu buñ déggee see kàddu rek mel na ni daanaka ni nga ko waxee rek euh, dañoo delloowaat euh, mbattu ca la ndax. ci mbégte mu am solo mi ñu leen fekkee itam ndax itam ku gis ni ngeen ñëw itam xam ne bis bi daal cofu leen ko yëg ngeen ko bu baax a baax a baax te loolu rek moo am moo am moo am solo Euh, tax doxin moom wane na Serigne Cheikh Asta sëriñ ak Serigne Soxna moom du ñaar kenn lañ rawatina ñu koy defee ci seen dëkk bi nga xam ne seen waay juru moo ko sancoon muy Mamour Diarra borom Cham mbokk bàyyi xel loolu lañ leen jëlaloon fii ci kër Serigne Mor Soxna muy Serigne Talla nga xam ne fi lañ dalal ñi nga xam ne ñoo uy waa kër Serigne Mor Soxna kon ci kanam tuuti incha allahu rabbi ci euh, conférence bi incha allahu rabbi dana gën a yaatu سبيله من هدايا إلهي فسلني على من لقي ببر وماي بكل سبيله غرا toqa الله ذهني وقلبي معا إلا المبتخى سفيها الناس منتقى هو المعتمر مقتفي المقتفى حكيم أجير الرضا مقتفي مقتفى به والرجاء مصطفى مربا مرب رسول النبي مبرح الناس بكل الذي يلوز لتحا الذي يماس به الاتحاد حرام على من هدى أباه دخول جنان دقيلا تريه ومن لم يلد ناجه ينتظر بكل ثقيل ونار نفاه تبونا على غيرنا بالعلا اسم المصطفى قد طفى بالوجوه أديم امتداء لبهر النداء جسيل اللها فتنال الربا الديم سناء لسي خدعا سجايا الكرام بفضل المنى فلا ينبغي أن يفوه سكيا بمتن عجيب لخير سماء فمدح النبي كريم العلي يكف العناء والردى والهدوء يصفي فؤادا فؤادا فؤادا هرى والأسى ويدل الصدى والظلام الطمع مدات النبي الكريم سخيا وأرجو به الدهر الدهر أتى إلهي حمدا يفيه بخير المسيد على ما أوتي حمدت إلهي لسي جرني إلى خدمة المقتدى السماء حمدت إلهي بشكر الله على جسم قلبي لحب النصيح لحب الرسول الرسول لسي سمدان أصلي عليه بمدع مليه فكن سيدي للخديم الدنيا سفيعا ليومي هنا والكلا عليك سلاما لسي أرتقي لدي ختاما بفوز يري سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عبد رب العالمين اليوم بالرايات une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer